kuukaan na moo xew lan foo jëm waa jibi non non xaar xaar xaaral ñu monteel la son waaw mais mais non non xaaral ñu tekkal ñu. jugle jugle xale bi dafa xew jugle teel mais rus naa ki nga rus naa ci dama jóg ndax ki Pawlish Mbaye Pawlish Mbaye Pawlish Mbaye il faut nga xaar ñu takkal micro xoolal xew xew wuy ma xew da ngay ñibbi de yaa gën a def seen yow wala il faut ma xew. mais man dama laa bëgg man jamono ji yàlla dafa tey nag pour télé ñu dimbal ko El Hadj Ndiaye dama bëgg mu sànni message tuuti. kaay nga toog nii. waaw kon da ngeen ko indi fii parce que damaa xew aw ma droit dem fenn. mooy yàlla. waaw Pawlish Pawlish Mbaye. man maa ko ko ñaan Pawlish Pawlish Mbaye. Pawlish Pawlish Mbaye. demal ñu def ràññeeku si kaay Moustapha Moustapha. kenn nga xamul kenn kenn mënul ci moom dara <laughs> waaye li ma li ma li ma yéem rek li ma yéem te doy ma waar mooy boobu bi carrière bi dooree ak léegi benn single <laughs> bu ko yàlla neexoon rek <laughs> ñun nag dana sonn ci bu ko yàlla neexoon jot na nag yàlla def ñu gis boobu ak léegi bu ko yàlla neexoon mais yàlla na def na def ñu gis jibi fay ah. jibi fay ñun sonn nanu ci Pawlish Mbaye mbaa la nga nuyoo Pawlish dama bokk ci ci phénomène réew mi waaw dëgg la waaw mais Djibi yaa a pousse. parce que man aw ma benn problème ci loolu. Ah, man aw ma benn problème ci loolu. attends attends bismillah. da nga xew allez vas-y benn problème ci loolu. toogal aw loxo bi ko affaire bi dagg xaw ma. waaw. ndax sama xam ne dañuy ànd sa baa da nga def. dañuy ànd ah. ma gis muy dawal moto sama xol dafa jeex tak nga ne yàgg na ci aar de moto la yor Vespa. mais est-ce que nekkul moom moo ko bëgg. bëgg ko de dafa ñàkk nag. mais wax na dëgg nag dañ ko war a jàppale. Pawlish waaw Pawlish. tey fii laa doon xaar ma yow. Pawlish yàlla dogal na. Pawlish jëlee eh, eh, eh, sa jaabi sa xas kii waaye ah, daf ci télé bi wax na. Pawlish dinaa wax ak yow tey. non waxal ak moom affaire yi il faut mu leer. waaw il faut mu leer. Mansour Bouna mi yëkkati oto jox la. Mhm. taalibe Cheikh Ibrahima Niass la maag moom ñoo bokk benn pays. déedéet di xaritu MC Niass. xaaral xaaral rek. waaw muy benn ñaareel ba. muy Waly Seck bi la njëkk yëkkati oto jox la. barke yonent yàlla Muhammad bu ma neexee xuus si biir këram. ñu door a door yes kan moo ni nga toll sa melokaan du du du du melokaanu nit. ku may door. Pawlish Waly Seck mi ngi njëkk yëkkati oto doore. bu ma léegi ma dama ko bëgg a yabal. léegi waaw Pawlish moo c'est-à-dire yow ci ki ngay siis. mayonnaise la réew mi ku neex tax. déedéet ak i mujj ba xaj bu ma yàlla neexoon. bu ma yà bu ko yàlla neexoon. tey tey nii may waxee yow. na la jox oto bu ma neexee. déedéet non non non non non bu la yàlla neexoon yow la jot parce que da ngaa eh, man kay sa bàmmeel nga ah. lay <laughs> ak sa jaag xalaat sama bab ak sa jaag dama xalaat laay xalaat loolu laay xalaat sa jaag boo màggatee say couche waaw sa màggatee ah sama couche ba amoon problème yaa ngi doog a ñëw. tey am ngeen mattu bu mag tey mattu mattu may mattu bu rëy ngeen fi indi tey waa kii. yow kii parce que ñoom. kii li ma nga xamal. nan maa bëggoon a fay. kan moo doon jéem a fay. xaw naa fi nga ko bi nan ma ko tere pour ma yee ko ci télé. waaw sànni ma ko yàbbi soxna jaara je m'excuse. mën nga yee sa lam tubaab la dafa exigé. dafa silvissé sama rakk ji. di nuyu soxna Diarra ak yaayam ju baax ji. Ah, maa ngi koy ziar kan moo nuyu loolu ñëpp yow. maa ko nuyu man maa ko nuyu. samay géer lañ de mais ku sopp la. maa ko nuyu man. des fois ma dimbali ko de. Ah, surtout bàyyi laay boobu macha allah rabbi laay maxtaar. <laughs> macha allah rabbi. maa ngi lay ziar di la tatagal di la nuyu. Pawlish ah. gëm nga ni da ngaa xew. xew moo tax papa policier yi duñu ma jàppate. si diggante yi barki Mouhamad. ah xew moo tax sama plaque ma def ci arrêté fex genre. loolu nga ci bind. boo génn moo koy gis xew moo tax léegi su may sangu piscine kebalaay day tàkk. mais lan moo tax kon bi nga demee brigade yàgg fa. waaw parce que kii kii def loolu damaa bëggoon a fay. fa nga jaaree fa tàkkaale fa la jaaree tàkkaale sama waajaa sama waajaa fa jaar borom vidange. bu tuddoon turam. barki ma xam moo baax waaye doo tudd turam moom. Serigne Cissé nga defoon Serigne Cissé mu Serigne euh, fekkee lu ñaaw euh, kii euh, mi ngi tudd. violation non non non non. diffamation. <laughs> <laughs> kii yàlla gudd fan. diffamation dama ko bind sama koñ élèves yi moom la ñuy waxtaanee parce que mu diffamation la laa ñu ko ci àddina pour turu jàmbur. naka turu jàmbur ci réew mi dañ lay téye. Uh-huh. looloo tudd diffamation. xam naa su ma amee doom incha allah bu juddoo Paris noonu lay tudd diffamation lay tudd. mais yow diffamé woo. ah mais xanaa moom moo bëggoon a jàpp rek déedéet même moom ñi la woo xam na ni yow kafkan nga fookan nga reekan nga bëggekan waaye xam nga xam nga Sénégal boo nekkee ci ñu laa fay ñu mel ni genre yi genre ruux pour ma fay xeewi ñu tàkkaat genre ñu xam ah des ruux ah Omar wuy non non ñi baaxuñu de ñi dañu xam ñi dugg bëgg boo tegee kaamil ne ñoom ñoo doon wut naan ma waxal ba ba ah, Papa Ndiaye Papa Ndiaye ba koo bi nga amee ñëpp a taxaw di ma seetaan eh. ndax yàlla mën a dof allahu akbar moo dof ku ko sàgganee ci dëkk bi yaa ngi sàggane lu doy waar Papa Ndiaye. Mm. waxi dof solo ci réew mi. man man gis naa la temps Papa Ndiaye waxi mbar de dëgg la kerebam mi mu Papa Ndiaye Papa Ndiaye eh, mais xam nga ni réew mi ñu yor fuldu bi nga yor télé mais mais Pawlish attanu ma sa tubay pourtant tubay bi mu tàng ma ne xaaral ma sëppoo ko pour daw gaaw parce que y a pas de temps damaa ma dama jàng nag boo mënul sañ Pawlish Mbaye lii ngay netti dama ci am mbégte ma am solo de waaw li tax ma am ci mbégte mooy bi nu la convoqué brigade de bu Colobane euh, maa la waroon a jël si ndax man mii la sëñ Cissé woo mu sëriñ Babacar si borom village ku baax am na ma sarak ji mi gi brigade de recherche bu Colobane te ay caaxaan la nekkee woon di foo ban yóbbu ko fa nanu dem def intervention ma ne ko day sëñ Cissé borom village mu ma naam ma ne ko dafa fekk day ma nekk nii ci rendez-vous d'urgence boo xam ne fii ma toog tënku na ma mënumaa waaye demal maa ngi la fay fekk far yàlla dogal Pawlish bi Serigne Cissé ñëwee. waaw balaa ma ko fay fekk si fekk na ngeen ànd ñibbi. waaw waaw loolu di tawfeex nag. di cant tey sax ma ko ñaanal yàlla guddal faram ci wéral ay yërëm ma ku yàlla baaxal la borom village. ku baax te ma jàll benn message parce que munu maa gërëm nit ci àddina. dëgg la. dafa am koo xam ne dafa def benn kiraama boo xam ne damaa yem mhm. léegi nii ñu daje. Mhm. dama ñëwoon sama kër ma may la 4 millions. Mhm. muy maam Thierno. Jeking. sama xarit la nit ku yàlla baaxal. wax na ma loolu ci yow bi ma koy xam du tey kooku xam naa ko moom juróom-ñaari gis musuma gis ku noonu ku baaxee noonu. amoro baa ki rasul la mënu maa tàgg ni ci télé boo gisee ay bañam ngay njëkk a gis mais dafa baax Pawlish nan nga may mouchoir parce que il fait chaud te plaît donne-moi les mouchoirs wala dund bi dund bi lay neex dund bu neex bi nga waaw léegi ah. parce que soxna sa tànk yi dafa weex sa soxna canta on oh, xanaa ba muy ñëw may ko diw aw kii sama doom la baal jàmm waaw des fois mooy sama taaw da koy may diw tànk yi weex na lool baal soxna canta mooy sama taaw xam nga man taamatuma léegi show waaw ah. léegi froid la taamu waaw kilim bi mais nu mu demee noonu sa voiture kilim oui ah voiture kilim chambre kilim oui ah bon sama waañ dèjà su may sango omelette sax kilim parce que kii ndogoon na koor gi maa yoroon doon na hmm. sama kër waañ dafa am kilim waaw kilim kilim kilim fan yi la boobu yow amoo accès bu dugg ci waañ yi jël sama saar bi s'il te plaît ah, <laughs> jibi tey am nga mu problème jibi jibi nag tey am nga jibi jibi yaa ngi nii dëgg du question woo bu baax bi nga woowee hmm. a wallaay déedéet ñaari convocation la. ñaar la. bokkul bokkul de. bokkul man police. mi ma boo a faagaagal dina boole police yi te police yi la gën a ah, bëgg. xam xam lu man kii la kii osu asu ah, lawbe. Fatou Laobé waaw ne ah a tur tur de que. Ah, diffamation lay bañ. ah non suñu yaay na mu sedd. diffamation nga lay bañ. bàyyi ko baax la yaa na ko yàlla suturaal. sama xarit la. damaa gis mu def lu jéeme sànq. Mm-hmm. dafa rob ay maire ci buntu armeer yi. Mm-hmm. mu jënd leen ku ne xar. may leen ko mm-hmm. ma ne ko lii pour lan la mu ne ma tabax bi damaa maye côté bi te mayoo ma côté bii. ma ne ko kon yal na defal jàmm. yal na yàlla suturaal. bee ji bi lan la baax la. daa manqué yal na yàlla sagal yal na ko yàlla aar. the na doomu nday Babacar mm. Bafti <laughs> macha allah ni ku yàlla baaxal la ku yàlla baaxal la kii ngay tudd nii uh, suma xarit la te bi koy xam du tey mooy borom Dubaï di borom <laughs> Amérique di borom réew yu mag yi ci àddina man Thierno Fall the king maa ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam te wéral ay cëram the king loolu dunu doyul yàlla sa jàmm yàgg waa léegi Pawlish ñu tàbbi nag ci waxtaan bi jibi dañu bëggoon Papa Ndiaye ñu ñëw nag ci actualité bi nga xam ne moo xew ci réew mi mm-hmm. di feebar wu metti bi nga xam ne mooy mbas mi mm-hmm. di coronavirus nga xam ne troisième vague bi di delta tëj na àddina ñu ci wu sunu collègue de travail bi nga xam ne yëf yi tàbbi na ci jëmmam moo waral tey ñëwul muy am di mignon ah ah yaa ngi tooñ de Amar yaa ngi tooñ. non dafa ko yaa ngi tooñ. pourtant ah, pourtant am nañu pourtant am nañu ba mu feebaree na de yéen a <laughs> am na yaram bi am na jabet. am na kuro bët. am na eh, fibrom am na doxum sida parce que nit ki di suñu borom ndeysaan moo tax aar aar dafa yéeme. aar boo dee ba commencé xeew yi feebar yu bari day génn sa yaram. ay déet waay. muy feebaru naqar parce que naqar la feebaroo. kon naa fekk nag waaye. waaw dafa tawat dafa tawat dafa amee Covid. dara jotu ko. ah kay daa feebar daa feebar la yor. nëbër këram ba baax bay jàmbur. non dafa feebar am am nañu ay. on on moom mën na def am on on seete ñu ngi feebar. xam naa parce que dafa am ni dafa sob. ah bon waaw fu da ko xam nag Pawlish. ah man du ma tëdd. si ko tali bi laay romb damay romb rek ak oto bu gàtt bi ah karkaar bu gàtt bi. te kan mooy bu gàtt karkaar bu gàtt la yow te xoosu ci wet gi. moom la ah, kon xam nga ni maa koy gis. la moom la jibi ah. ñu sensibiliser tuuti Sénégalais yi. <laughs> balaa ñuy wéyee la waxtaan bi di tàbbi ci ambiance bi fii réew mi toll tey ci wàllu feebar dañu war a waxtaan ak Sénégalais yi ci ñu gën a mën a bàyyi xel seen bopp. Mm. fagaroo gën faju te mag mooy faj boppam na nuy raxasoo gel yi di ko téye ci sunu ay loxo waaye di ko bàyyi ci suñuy buntu kër ak suñuy buntu saal ak suñuy buntu suñuy buntu bureau suñuy buntu barabu liggéeykaay ya ñuy dem te maski ñu di ko takk te it bàyyi xel ci li nga xam ne mooy wér-gu-yaram bi nga xam ne yàlla daf nu ko may bu nu ko fooyee bu nu ko sàggane su ma waxi démb mooy su ma waxi tey feebar bi ndigal la jot jóge ci suñu borom bëgg tàbbi ci suñuy jëmm mm. waaye ñu nit dañu jot ndigal protéger wu ngir mu bañ a dugg ci suñu jëmm mm-hmm. moom daa am ndigalu xeex ñun ñu am ndigalu baare mm-hmm. dëgg la waaw kon nanu nanu nanu bàyyi xel ci ni ñun bu nu jëfewul suñu ndigal moom dina jëfe ndigalam kon nanu fagaru ku yàlla war a dogal ci sa jën ñu bind ne dana tàmbi ci yow dana dugg kenn mënu ci dara man mi toog feek ñëpp ci am mhm. waaye ku yàlla war a dogal ne kat dana ñëw ba dem te doo ko fóon a ñeex yàlla dana ci muccal insha allahu rabbi te yàlla na doon sa njiglaay jibi loolu ñuy wax tey gannaaw bu ngeen nuyoowee ci fi feebar bi toll ak fi réew mi toll ñu waxtaane ko doog dugg ci actualité accident yi bari ak moor yeeg yooyu jotuma nuyoo mhm. ndax gunóor gii toog sama wet mhm. ak kéwél gii toog sama wet gi xew eh, Omar téléphone baa baa ngi sonné jibi nga baal ma jibi nga baal ma dafa mel ni am na mbokk mu ne ci ligne bi se bu baax mi la maaleykum salaam asalaamaaleykum yaa mun salaam na ngeen def allo allo waaw yokk retour bi yokk retour wala bu nekk bi déggunu de wala bu coupé allo waaw maa ngi la ñuy dégg Omaro Pawlish loo ko nga ne ko wala bu coupé wala bu jàkkaarloog télé bi bi ñëpp ñu ñëpp ñu seetaan allo yow foo dem waaw yàlla moo def loolu. allo xew. allo waaw Omar eh, yeggale eh, ji ah, bi yeggale. allo yokkal sama waa kër jiite sama waajur bu jigéen sama mm. yaay. Mm. maa ngi koy nuyu bu baax. jubal jubal. Mm. di nuyu samay ndiyaay ak samay tante ak ñëpp waa koñ ba. rawatina waa Ndar maa ngi leen ziar fu nit mën a ne rek di nu seetaan maa ngi koy jox loxo dëkk bu tàng doon ba ma may jàmm mën nuyoo ci jàmm ak salaam Pawlish Mbaye dëkk bu tàng laa wax rek jërëjëf Ndar dex ak géej nga ni dëkk bu tàng mm-hmm. jërëjëf nee ni xorom la mm-hmm. sant yàlla ba tax na fi mu ne nii Umaro da nga dugg fu am solo muy ci mm-hmm. cadre feebar bi feebar bi li ma gën a neex mooy sénégalais li ko neex rek la xam sénégalais ñu ci baree bare jaataa yu mbéy la ñu bëgg ñu ci bare bare kaf ak réer la ñu bëgg. waaye feebar bi dafa am. feebar bi saa existe booy doo wàcce sànq ni sa yoon nekk si man lii la jërëjëf je maa ngi jéggul feebar bi lu am la ndax nii may wax ak yow bërki dem ci sama koñ yàlla dogal ji bi maa ngi koy jaale waajuram bu góor. Ah. nga xamante ni macha allah rabbi feebar bee ko yóbbu. billaahi kon mu nekk loo xamante ni. Mm. lu am la. ji bi naa tamit nga jaale waale ñi ci faatu. waaw ndax fii mu ne may wax ak yow li ci ay doomi aadama yu ci génn àddina ci troisième vague bi kenn xamul nu mu toll. daanaka Sénégal Sénégal ëpp na 3000 personnes. man bu ma yeewoo. bi nu wàññee ëpp na mille personnes yoo xamante ni corona bi moo leen yóbbu 3000 nag. mais mille bu buñ koy wax waxuñu ko ci xaalis. Mhm. buñ ko xayma ci xaalis bi maanaam danga naan benn ñaar ba muy téeméer. Oh. nga jël téeméer yooyu waat ko ba muy fukk. nga jël fukk yooyu teglawaat ko ba muy ñett muy juróom benn téeméer ak lu ci ay nit yoo xamante ni seen bakkan faatu na ci corona virus bii mm-hmm. am na ñoo xam ñu ngi tëdd ci hôpital ba beneen bi mooy Sénégal amatuñ sax faf oxygène dafa manqué mm-hmm. daanaka léegi bu jëkk boo daan tawat da ngay doo fay dara ñu daan lay defal oxygène ñu ne pikit ñu ne ñu pikit oxygène bu ko defee macha allah waxuñu la rajo ah, bu ko defee macha allah rabbi ñi nga xamante ni fi mu ne nii dalagu leen dañu leen nanu fagaru mm. fagaru bi mooy nanu respecté Euh, mesures yi nga xamante ni moom la waa kër docteur teg loolu nag macha allahu rabbi jibi yow ah, eh, mais lii loolu nag dañu ñaan rek nit ñi laaj mm. ci bàyyi xel di raxas seeni loxo ah. di respecter distanciation yi mm-hmm. ak di fagaru tey sensibiliser. Eh. doomi aadama yi. macha allah jërëjëf macha allah loolu am na solo Papa Ndiaye balaa may jox euh, euh, ñu jël ñu jël mbokk mu ci ligne bi nga baal ma yokkal ma retour bi tuuti rek ma mën a dégg li muy wax eh. bismillah. allo ah, allo oui. waaw maa ngi lay dégg yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla gërëm Serigne Bamba kooka na. Omaro na maa ngi sant yàlla bu baax kii am na ñoo la. waaw maa ngi nuyu ñi nekk plateau bi ñëpp. ah million ñi ngi lay fay ba yaa ngi si jàmm naka sa yaram yaa ngi tane. maa ngi tane bu baax a baax a baax. macha allah macha allah macha allah. damay d'abord mm-hmm. rafet jërëjëf waa am na namoon nañ la lu tax ñëwoo. dégg naa woote oh, pour dégg naa dégg naa li waaye yaakaar naa man sa <laughs> mais mignon man li ma dégg rek laa wax li ma lamp bay wax rek laa wax. balaa balaa ngaa wax ay wax dégg naa. no mais lamp mais lamp mais lamp suma chef production moo ñëw ci man na ma am du ñëw tey parce que dafa Covid. aw ma lu may wax lu dul déglu rek déglu rek déglu rek waaw man maa woote maa bëgg nga déglu ma ah. bismillah parce que àdduna yëpp ak woo léegi may naan damaa yow amaroo xaw moon nii nga ma yéenee jàmm nii nga ma yéenee musiba <laughs> man li ma wax rek laa wax nga invité nga koo xamante ni tamit Pawlish Mbaye sama rakk la sama doom la mhm. maa ngi rafetlu lu mu toog ci plateau bu baax a baax benn yaa ngi may dégg waaw fekkoon damaa corona tamit jibise léegi la jóge sama kër avant muy ñëw eh! moom ah, ah, wàllam eh! ah, ki def ko déglu rek dara jot sànq ba tey dama ñëw damay waaye yëggale toujours tu es fidèle fidèle jibi hmm? yow toujours tu es fidèle Papa Ndiaye te mon ami nami mon frère wala d'accord léegi dafa fekk lu tax ñëwuma tey ci plateau bi yéen a ngi may dégg bu baax. ñu ngi lay dégg mi ñëw. dafa fekk sax ñëw ma si plateau bi man dama doon liggéeyee improvise. nga ne. man dama liggéeyee improvise. j'ai pas compris am di. non di liggéey improvise man dama liggéeyee improvise. improvise li ñu créé nii pour def ko improvise pour ñëw teg. ci plateau spécial bi li ñu jékki-jékki rek improviser plateau spécial bi yow doo liggéey. ci parce que il est professionnel yow ci looy liggéey. man lépp lu may liggéey day fekk avec être professionnel. ah bon. être sérieux est am na sens est-ce la li ñuy wax mu am ah, sens maa ngi déglu Sénégal la leen bàyyi xel fexe leen di ko waxu nit mu <laughs> ngi jaxasewaat mu ngi dóoraat ci gars li muy wax amul sens de jërëjëf am li ñu wax faire bi faire bi dañu wax am na sens yaa ngi dégg am di am di am di am di bu ñu déglu parce que doo ngay coupé kii yéen lii wax amul chance sax da ngeen koy coupé lii wax amul dañuy waxtaan lii wax amul chance da ngeen koy coupé déggante la moom yow da ngaa bëgg a wax ko mais da ngay jëlu nit ñi yow da ngay jëlu nit ñi tuuti da ngay jëlu nit ñi yow da ngay jëlu nit ñi rek da ngay jëlu nit il faut nga jëlu nit ñi yow mais mais mais am na lu ñu xalaatu il faut nga jëlu nit ñi déglu ma la waaw déglu ma la il faut nga jëlu nit ñi da nga réew xale bu da nga toog ci plateau bi moo ma neex am na million il faut nga il faut nga na million waaw li ma jaaxal mooy plateau bi waxtaana nañ ko depuis jeudi passé jeudi bi entre temps di jeex la ñu waxtaane plateau samedi soir bi nga fekkee ko di ko dégg ak say nopp di ñu gis ak say bët jaxaran nga bàyyi ba tey nga def lu la saf déclaré Covid. man la moo la dal xaw ma dalul la. man ba mu neex la ñu tiiñal la nga ne tey ay bu ma liggéey ci ah. improvise yow respecté woo Sénégalais yi. am ah, na million kii. Euh, euh, mais li ngay def ni improvise la. respecté woon Sénégalais improvisé mooy plateau bu ñu préparé. artiste xew yi dama ay ci ñoom. Eh, ba léegi oui oui oui xew yi. oui Pawlish. artiste xew yi ah. dama ay ci ñoom. waaw bismillah mooy actualité temps yi yëpp. artiste xew yi dama ay ci ñoom paa yu xew yi bu ay paa lañ déjà. bu ñu nekkee xale boo xam ne dafa xew pour ma wax leen li ma li ma saf day yomb ci man moom du ñëw ah. sama plateau jamais de la vie. man sentiroon naa ne barki salaatul fatiha. Oh, kii dafa actualité semaine bi yëpp moo ko mais xew na. ah man chaque chaque jour maay éclaté chaque jour maay xew ma chaque jour Pawlish da ngay dégg moo tax artiste yi. kii bu sant kii bu sant yow non xam nga ñaari artiste yi boo leen boo leen xewee rek yéen a mën a waxtaanee ñaar yow sax yow sax ci taw ci xaw nga xew tuuti ci xar yi. jërëjëf day bàyyi waxtu loolu wax rek baax na mais man li ma jaaxal mooy Pawlish yow ba ma la xamee ba tey ba ma la xamee ba tey. ci benn temps nga ko téye. fala fala ba nit ñi xamee benn temps boobu nga ko téye rek. ah fan la ñu bëggee kat. yow. dinaa wax benn temps rek da nga yor sa ceeb rek di tàngal rek. ñu wax beneen yow da ngay yow man yow yërmande Sénégalais yi moo la fi bàyyi. temps bi la ma ñëpp la ma ñëpp xew waxi. wa wa wa. waka ganga sa amsul wala ma dimbali gurak dada gurak gurak dada gurak géej yow yow géej géej géej waka ganga géej xam nga man suñu borom dama dimbali dama mën a fecc dama mën a fecc yow tax la dama rey jawul ma gaaw yow dama mën a fecc il est attirant il est mignon il est galant il est sympa géej géej yow yow géej géej géej waa kam kam kam gi xam nga loolu dafa neex <laughs> man jibi man jibi gu de yow kii nga bëgg yow ah. man xewee gu ma de Sénégal waxi dof xam nga su ma jéemee di garaaw garaaw kon ni def di changer ay ay kon yéen ni def des def lu neex des def yi damay xeewi waxi dof lu ma nit ñi xamee ci laay continuer at luy tukki parce que Sénégal yi doon naïf musuñu man la laa fi man la laa fi mel ba ba nit di ma kot di ma jooyal na ma dama laa bëgg. Eh, eh, xaar rek xaar ah barki Seydouna Muhammad moment bi li ma nit ñuy kottal des fois man xam nga li tax dama xew damaa intelligent. des nit kott ma jooy ma dawal sama oto ba man kese seeri ne ma waa kii lan la war a jooyal sama waxi dof la wala attirant wala ma yàlla dimbali xam naa réew ma au fond mais c'est que nit bëgg damay def yëfi réewande parce que xam nga nit ki noo ñàkk ba yàlla yëpp laa sutura nga war a réew lu mënul mënul ñàkk mais Pawlish xam nga lu tax ma gëm ni da ngaa xew. waaw wallaahi azim man Omaro balaa maa nelaw. foo ma seetaan kii ba ba parce que loolu la suñu borom moo indi défi parce que. mooy ni la ba moo naan défi. mooy loo xamante ni par exemple da ngay def dafa am koy defaral wala koo koo xam da nga koy defaral. benn la rek moom benn la rek mooy lan parce que ma nekk xale dama doon seetaan nuyoo. ma lay xool nga sol ay piment ma ma topp la tilleen te papa euh, bu solo aramoon yaa nga safara parce que ba ngay solo dëgg bu solo aramoon yaa nga safara wii li yow ma leen topp moom moom Amady ak Ameth ma leen di topp ma ma bëgg leen kon na ma tey jii trop pourtant la moo tax artiste yi du ma gaaw a dab xam nga kii pointure ba amul ci àddina <laughs> que te te te sonn lu ñaaw tey nag euh, bi moom maa ngi gëm ni du yàgg lu tax parce que kii moom xam na ma màgg na ko moom xam na ko sax. te te te dama calme nii toog daal la bàyyi faal ma mais wuy ma. sa sa sa salaay da koy génne pour nit ñi xool ñëpp dañoo génne seen daal nga génne daal nga soo ñëw ci plateau bi il faut génne sa waaw bu ma nga koy bu ma nga koy nga koy dugal noonu waaw waaw man mënu ma mesurer deux mètres macha allah rabbi suba xaal sala ci de sa 43 yow mi nga xamante da nga mel la ponce ponce su ma nee ponce ngay ngay wuru fa nga daka génnal ma de su ma leen ma daay Pawlish Mbaye ba jàmm Pawlish. ñii tey du ma may dara dama ni tànku xale nga yore bu dama dama précoce rek. tey soo koppati bu ñaangu. tey lii moo tax am duñu wax lim ñuy wax parce moom moo tax. yéen ñaar même kilig la. même kilig la yow su am yaa gën tamit parce am dafa feebar nii te dafa jabet te yow ah macha allah leen rek moo da nekk ci yow muy Sophie. da loolu rek moo jaaxal waaye ah weerante moo dafa xew quoi. mais c'est non mais c'est normal. jërëjëf léegi am na benn vidéo làmp de bu ma lay jox ci kenn. ah ñaan na la ñaan na la ñaan na la d'accord vidéo bi non vidéo bi dana génn. non vidéo bi foofu génn làmp de. non amul ay vidéo ay waxtaan la. non vidéo bi foofu génn. di nga kal woo doo kal. maa maa ngi xaar tey. non vidéo bi di nga bàyyi woo doo bàyyi. maam Diarra maa ngi lay ziar bi vidéo bi il faut mu génn ziar waa kër gi. vidéo bi ziar ñoom maam Cheikh. ak ñi si sax limal ma gis gars yi. Papa Ndiaye vidéo bi vidéo bi il faut mu génn parce que tamit samedi soir la. dañuy waxtaane actualité <laughs> waxtaane waxtaane li mais loolu loolu nekk loolu loolu nekk actualité lépp loo waxoon ci man nag recommencer à zéro nga defar loolu loolu actualité defar ka bu baax la de ku yaa gërëm la. na bàyyi ba émission bi jeex. waaw ba émission bi jeex ba gërëm la ok waaw merci waay Wado waaw léegi léegi léegi Pawlish. <laughs> waaw tey dañu am lu ñu remarqué. parce que tamit euh, danañu kaf danañu foo danañu ree. Mm. waaye tamit am na ci loo xam ne lu métti suñu xol la. Mm. mooy ni feebar bi di yóbboo doomi aadama yi. tey boo yeewoo. Mm-hmm. man bu ma yeewoo li may njëkk def. Mm-hmm. mooy taal connexion internet bi rek daw ci statut yi. Mm-hmm. na xool ndax amul ku ma xam ku takk ci man baa ku ma ràññeeku bokk ci suma xol ku wàññeeku ndax rib yi day mel ni bonjour day mel ni salaamaaleykum nit ngi dañuy yeewu du nuyoonte doo romb ñetti institut te gisoo ñu dugal photo nit bind ci rib ba mujj tey ci suba sunu mbokk moom nga xam ne ndeysaan euh, ab scooter la yoroon di di def ay livraison yàpp benn soxna fii ki technopole en face arène nationale. benn Ndiaga Ndiaye ñëw mbëkk ko. ba ba ba ba ba ci kaw mu faatu mook soxna si. muy lu metti dëgg mi toll na foo xam ne daal euh, mel na ni tey yëf yi jaxasoo na euh, xeexu gudd na kurpeñ day dal te doo xam fu mu jugee. Mm-hmm. ku deewu ci feebar bi yaa ngi dee ci accident yi. mais lu xew. dëkk yu bëri balaa. dëkk dëkk su bëree balaa ñu bëri maytu ci àddina. bari na balaa lool te balaa li balaa li ko indi mooy lu bon. Mm-hmm. ubunoo tànk yéenew ñu nit ñi jàmm ku nekk nit yéene sa bopp jàmm mm-hmm. feer bi feebar la mm-hmm. feebar kese la amoro musuma tiit ci musuma tiitee ci feebar ma mi dem ba yóbbu sama bopp ñàkkal ma nga xam ne man suñu famille ñëpp a ma dem ma dem ba dindi sama téere sama téere tul pour ñàkku nga xam ne ragal naa ci feer bi mm-hmm. te feer bi mi ngi tudd delta marque avion la te luy naaw la marque avion marque boo xam ne luy naaw mu ngi tudd delta avion ci kaw lay naaw delta ci kaw lay naaw bu sa tàngee dalay dal fa force. lan feebar. barki alxuraanu karim bëggul xol bu tàng. bëggul xol bu tàng bëggul énervé bëggul jëw bëggul xale yi daal tous booy. i ñiy daw feebar nañ ah bi li ci ne lépp dafa doy waar. ñi naan tous. ay ay vole ñoom ñëpp. feer bi vole na leen nànk par nànk ni danoo jëndul rek feer bi xam lu mu bëgg nga sell sa xol rafet. Mhm. nga dal di wax ci nit lu baax. loo gis sa morom yéene ko jàmm. di ambiance di ambiance di fo. barke yonent bi du la takk. bëggul toogaay mbett bu bari. nga toogee mbett sa ko rafet. mais tous tous moom. Omaro mm. ko dégg mu naan tous metti nii. Mm. feere xam nga metti nii. Mm-hmm. ah booy dina a wax joo xam ne. volet bi volet. Mm-hmm. tey nag ma leeral lépp Omaro parce que li su ngeen di ma ci plateau bi. Mm-hmm. plateau bi damaa yàgg neex parce que. réew dëgg la dëgg la. te fi nga bokk fi parce que ñi ma xam ñëpp man xaaj bépp dañuy volet. i barke salaatu luy loolu ah dafa am benn comprimé moo xam ne ñu ngi koy naan bu koo gis koo gis booy bi takk koo gis jigéen bu takk noir fumé rek ak góor gu takk noir fumé rek ñu ngi ah. metti ni ni bi mooy yàq seen xol bi nii xam nga non mais yal na ci yàlla musal ci volé amoro volé bon yàlla na ci yàlla musal yàlla na ci yàlla xale yëpp xale yëpp yi ma xam yëpp a ngi volé comprimé la bu naaw boobu comprimé la boobu ñu ngi ko def pour ci gileem lañ koy monté gileem avant ñoo rey gileem dañ ko koy jox bu gileem gi tëdd léegi nit xale yu ndaw di ko naan day rey sa yaram daal day rey sa waaw doo bëgg leeraay da ngay liw i da ngay summeeku ni la sa yaay juree wallaay ku ko bëgg a jàppee dof mi ngi lay waaj a fekk loolu li mu wax fii léegi loolu italien tuddee et tout say fourbo io non sono scema ku ma jàppee dof yaay dof italien moo trop intelligent damaa intelligent waaw Amado nan sànni message ci xale yoo xam ne mm-hmm. ndax feer bi xale yooyu lay dal de mm-hmm. bu sa yaram ñaa ñàkkee ah, kii oxygène pas oxygène Ah, calcium calcium. Hmm. waaye jàng waay bu seeram bu seeram ñàkkee calcium. feer bi bu la dalee da dee far force te xale yi volet yëpp la feer bi dal barki Muhammad yal na ci yàlla musal Omaro volet baaxul Omaro. Papa Ndiaye affaire yi doy na waar Pawlish dafa mel ni mi ngi wax lu am solo loo xam ne eh, actualité la bu am ci réew mi te ñu war ko bàyyi metti métti koo dégg mu koy def rek mi ngi volet koo dégg mu naan métti ni wala mi ngi suus. suus man ci ceeb lañ ko waroon wax. Omar man man fi may fi may ñëwee fi ah, fi fi fi Pawlish nekk laa la laay waxtaane mhm. mooy Pawlish dafa nekk foo xamante ni chaque jour mi ngi naan i dof mhm. moom xam na ni waxul waxi dof mhm. ndax dégg nga léegi nu waxee nit ñi li xew ci réew mi kon donc lu war a bàyyi xel mooy nit ku mel ni moom exemple bi may jël ci moom laa ko jële mooy euh, sama benn xarit boo gaa jaw daf na kuy waaraate war gaynde doo bëri seetaankat déedéet foo koy bëree waaw moom ni muy communiquer lu mu bëgg a jàllale ba ci Pawlish mii ak youtube youtubeur yi mel ni moom. war nañ mën a ñëw ci ñoom fay leen. Mm-hmm. parce que seen liggéey lañ. Mm-hmm. ñuy jàllale communication parce que seen communication communication la boo xamante ni. Mm-hmm. mooy li ma la wax kuy waaraata war gaynde doo bëri seetaan kat. ñoom dinañ fexe ba ba ba ottal la. ba nga ree ñu leen lañ bëgg a jàllale. parce que ku nekk ak ni ngay communiquer. dëgg la Omar dafa wax léegi lu am solowaat ci. mbirum accident bi ak tali bi. Mhm. Pawlish wax ci loo xamante ni moo tax feebar bi ne fi. ak ñi ñuy rey fan i di leen daggati papa Ndiaye. mais dëkk loolu li ko indi mooy ñu dugg ci bi. taw dëkk bi ne ay boucher lañ. dëkk bi day mel ay boucher. ku ku ne di dagg di rey benn ku ne di seeraat di dagg di rey mais c'est honteux. Pawlish ah, kuñ mm. nangu bagage am wala kii kuñ daggate moom Sénégal xamu ko kon kuy dugg ci réew mi. gars yi nañ bàyyi ñi ñuy defar ay këyit dëkkal leen ci réew mi. Mm-hmm. c'est vrai de. nañ bàyyi ñi ñuy defar ay këyit te dëkkal te réew mi réew mi war frontière am na. dëgg la ku ñëw rek dugg. dugg ubbi ku ñëw rek dugg. Pawlish wax na lu am solo. Mm-hmm. gis nga moom mii ni mu mel ak li mu yokk. Mm-hmm. nañ ko ko nangul. mais Papa Ndiaye nangulul Djibi Sèye. mais man kon yàlla laay xeexal xeexumaa Djibi Sèye. Omaro nangulul Pawlish. xeexul ak Pawlish yàlla lay xeexal. nit ñu mu mel yàlla. Mm. ñun ñoo war a defaraat suñu bopp yéeneente jàmm. Mm. xam ni yàlla njëkk a teral di bi sëy. dëgg la xam nga Papa waaye sànq damay déglu seen sàmbay. Mm-hmm. radiyallahu taala anhu mm-hmm. mu wax wax ju am solo mu moom. xam na li koy yàlla war a jox dana ko jot moom xam na ko moom. Mm-hmm. waaye lu mu war a joti te yàlla jox ko moo xam ne du ko jot. loo jot rek jotu waaye li si topp yëpp mooy sabab. loo jot loo waaye man moom damay faral di wax ni. man loo xamante ni mag waxuma ko nit waxuma ko. maa dox ba mu toq ci sama nopp Papa loolu xamal ma ni ma bakkan bu yàlla bind teral ko moo ko tax a jóg dëgg ko tax teral ko ah. moo ko tax a jóg bakkan bu yàlla mën a bind teral ko moo ko tax jóg mun ma ndigam man ñii la ko yàlla defal mhm. te du ma nit waxatuma ak yow mii doomi aadama ndax dégg nga ma bu baax Papa Ndiaye bu baax maanaam kii iñaan mhm. daa xamul ndax yow yàlla suñu borom mi ngi lay teral mi ngi lay defal teraanga joo xamante ni boo ci boo maam boo bàyyi woon xel tuuti di nga xam ne suñu borom ku teral ku mu teral la ba pare yaa ngi def lu ne waaw teral mu ne teral imagine yi mu digal yëpp dafa ko mu lay teral tooñu ma ki nga mm-hmm. xamante ni mi ngi doon dox ba yàgg suñu borom téye ay cëram tey yaa ngi ko kon ne di di ga di ga di ga wéele kon doole ji ngay yëkkatee sa tànk ëpp na ay tonn di dem ndax nit a ngi toog daan ko yëkkati ba bis jot mënatul jóg bërki dee moo njaay tey yàlla ka yàlla may wér muy Baye Fall sunu sunu mbokk artiste boobu. Mhm. mi ngi daan xoole daan dox di defi soxlaam yàlla xëy suba muri bëtam ci tawat dong. Baye Fall bu wéri wéri Baye Fall bu wéri wéri dafa am solo yàlla ka yàlla may wér. Mhm. beneen bi seet Pawlish Mbaye mi ngi wax ci côté drogue. maanaam drogue. yi ñuy jël te baaxul nit koo gis muy drogué wu. c'est parce que gëmul boppam. Mhm. dëgg la ndeysaan àdduna say jafe-jafe da nga koy faire en face parce que xamul tax Baye Niass dafay wax ni benn fanu naqar boo gis ñetti fanu bànneex mi ngi ci ginnaawam. waaye na ngeen xam seen benn fanu naqar boobu. moo leen di jàngal dëgg. waaye seen i bànneex ci fen loon dëkk ak yéen. dëgg la dëgg kon nit ngay am jafe-jafe dafay baax maa Abdou daal na wax ni su ma toogee weer aw ma tawat damay jaaxle sama bopp day mel ni yàlla dafa maa fàtte. Mhm. kon nit ñi yàlla nattu bu ñu toogee muñ tuuti rek sunu borom dañ leen dindil jafe-jafe yooyu indi leen bànneex maanaam bu am jafe-jafe rek daal ni mënatul nekk yow mi jeune. tàmbalay drogué loolu rek koy indi may ñaan na ñu bàyyi ko rek ndax amul benn njëriñ mooy indi rayante bi mm. mooy indi jamante bi mooy indi jël alalu jàmbur mooy indi soxor gi mooy indi iñaan gi mm. waaye may wax pour nit ki dalal xelam mm. mooy que yàlla mi la fi indi mm-hmm. fekk sa bakkan bakkan rootul ni ko Barham Diop waxee woon radiyallahu taala anhu mm-hmm. maam sa wërsëg jeexagul. te te te ñoom bu ko defee mm-hmm. dañuy bëgg góor bëgg góor goo xam ne ah non dañuy cag normal lii loolu non mais yàlla na jàll mosoo ci volé ay volé. ay volé am na am na am na ñu volé di la woo. ay xale bi Pawlish teewu la man man waxee nii mais xam ne volé nga dama ma leen coupé te parce que duñ ko tay. buñ volé lu metti nii. daan la lan nii lich teewu maa ma da ngaa nga ma metti dama leen coupé bala ngaa bala nga dama nii ma coupé la. parce que dañuy xeetu càgg yi ni suñu borom di leen may. su ma xeetu càgg yu mel <laughs> kii yàlla gudd fan. non te ñuy fare du duñu ëmb um, du lu yëpp duñu ko def. ah Valet s'il vous plaît dindi. yaa ngi um, Valet Paul. bul bàyyi yow li nga wax ni yaa ngi sensibiliser sa morom yi léegi ma ñëw fi kii ñëw. gis nga Omar. Mm-hmm. Mm-hmm. ak lu mën a xew. Mm-hmm. Baye Fall feebar na waaye turam. turam la wuyu. yaa ngi may dégg jibi Baye Fall feebar na waaye turam la wuyu. ndax moom ku ko xool xam ne Baye Fall la. waaye li gën a am solo ci ñoom mooy. bu ñuy ànd rek. wat gaal ak yóbboo. parce que ku ne xam ne Cheikhou Gueye nit ku ah. baax la. Sadio ku baax la de. Mm, ku baax non aar ku nit ku baax a baax. billaay wallaay ak solo. ba ma nekkee samay problème. Mm-hmm. barki salaatul fatiha. Mm-hmm. moom moo loo xar tànku tubayam. Mm-hmm. billaay wallahi ak ma suul sama ndey ak sama baay. di ma baalu nit ñi. ni ma pelante barke alxuraanu karim. noonu la mel Cheikh xaw ma nag kii lu ko gumbaal. mooy xool li ko mu def. mais du du alal. du mm-hmm. alalu bu dee saa neex rek mu toog ci noppam dina ko faj def sax nag parce que yëgal na communiqué na dina ko faj nit ñi a ñi dafa feebar mais nañ ko ko jéggal bu fekkee dañ ko gisee neneen ñoom mm-hmm. ñu waxtaanaat seen biir mu yem seen biir ñu jàppale ko parce que seexu social lay wër di def dafa baax suba ba eh, ngoon xam nga xam nga Papa Ndiaye fi nga nekk dafa am solo mm-hmm. dafa am solo gis nga Pawlish Mbaye eh, problème mu réew mi mooy dañ kaf dinañ ree de da ngay da ngay mais li ma la waxoon rek à l'agréable da ngay ànd ak sa nit ah sonn moom lool Mhm. daj ci moom lu ne. Mhm. Pawlish ànd boo gis rek ñaari joxe la. Mhm. ñaari ñaari joxe la. ñaari joxe. benn bi doole la. benn bi alal la. ànd boo gis. ñaar yooyu moom faw dana ci am. am na ànd yoo xam ne nag ñi ko sekk ñëpp alal la ñu joxante. am ànd yoo xam ne ñu ko sekk amuñu alal doole la ñuy joxante. am ànd yoo xam ne kenn ki day am alal kenn ki am doole ñu di ko joxante mu laal ànd wa. waaye bu yàlla dogalee ay jafe-jafe am ci seen diggante nanu ko rafetal toog waxtaane ko ndax mooy àddina waaye lii doy léegi ci Sénégal mooy da ngay ànd ak nit ngeen bokk bare bu liggéey di liggéeyandoo wala nga ànd ak nit ko lëre boole la ak ñoom jafe-jafe ñëw rek mu mel ni yaa lañ ko teg mu mel ni yaay seen premier noonu ñuul bëtu ko jël jafe-jafe yi wéer la ko déclarer la guerre Mm-hmm. indil la ay xat-xat dugal la ci ay jafe-jafe ak ay wax yoo xam ne da ngay jékki-jékki yi fi dal comme ay mbalu fetal te xam fu mu jógee mm-hmm. te amaana tey bi kóllëre wi neex mm-hmm. jàmm di ki dox soo xalaat na loolu dina jug dox ci sa diggante ak sa nit ba pare nañuy sóoraale ni jafe-jafe du am ci diggante bi rek diggante jeex ñaata diggante fi ñaawoon ba ñu ne ñii moom ci àddina baat ak tontu dootul dox ci seen diggante ñu xëy àndaat ba tuddante ay doom ñu xëy àndaat ba takkalante waat ay jabar man jibi xamal ma bëgg moo tax bu jafe-jafe amee nga ñaawal rek di ma defar di ma defar ba bis bu juum solo ni ñuy sóoraale jubóo léegi nag gars moom bu yàqu-yàqu amee rek pour ñoom yàqu-yàqu am na jeex na calma général yaa ngi may dégg ñu génn wax ñu am umaro wax ji mooy man su ma amee lu ma metti nit da ngay fonk say wëlëre fonk say mbokk dëgg la maanaam tey jii bul am jafe-jafe rek nga daan ni wëlmét daw ca télé ba mhm. daan ay diw la ma def eh même bu ngeen jubóowee maanaam kooku tey jii bu toogaatee ci internet bi séenaat wax jooju dana am lu ko metti dëgg la parce que dañuy faral di wax nii wax bal la bu njëkk benn maire dañ ko laaj bu am téeméeri at mook mhm. borom këram mhm. ñun ko waaye yéen seen couple bii la moo tax mu yàgg mu ni couple bi dara taxul mu yàgg lu dul rek lenn tax couple bi yàgg mooy ñun suñu jamono lu yàqu dañ ko daan defaraat waaye yéen seen jamono lu yàqu da ngeen koy sànni dem gu wuti leneen. dëgg la da ngay xool bu njëkk téléphone fixe maam téléphone ba doon fa ne ba borom kër ga dem ñeneen donn ko waaye tey ji léegi xoolal téléphone da ngay jënd benn bala muy trois mat trois mois beneen génn nga dugalaat boobu seeti beneen. da wax nañu ni ci ku mel ni kii góor gu baax googu ñuy wax suñu soñ bu Mbàkke radiyallahu taala anhu mm-hmm. nee bokkoon na ci wëllëre moom wëllëre mhm. maanaam néegam daa bëri woon bagage moom néegam daa bëri woon bagage li tax mooy bu daan naanee kopp ba kopp boobu yàqu da koy jël denc ko bu nekk lu tax mu ni séq nañu wóllëre laay ndeysaan ñoo am kóllëre ndax dégg nga wax jooju laay ndeysaan maanaam wóllëre maanaam yëpp ay valeur la yoo xamante ni ñun daañu dañu ko dañu ko daan jàngal maanaam mag ñi dañ ko daan jàngalante seen biir mhm. war ma kersa nga xam ne kii mënul man am naa fukk moo am na benn ma daal di dimbali ci sama benn waaye nit du ko yëg de. parce que man du ma kan la moom lii yàlla waxoon yonent bi ba nga defee defuloo man yàlla man maa def. Hmm. kon amul kenn koo xam ne war nga mën a namu ni man maa def. Hmm. waaye itamit amul kenn ko war a namu ni ah man de wa ku saalit ni man de damaa ñàkk ñàkkoo de suñu borom molo ko teg. Hmm. lii rek la maanaam nit da ngay nangu dogal maanaam boo nangee dogal rek maanaam lu baree bare suñu borom mën la cee suturaal mais malheureusement jamono jii ñu toll. ah ñoxor Ndiaye Samb rek nga daal di daw ca télé ba. commencé jooytu commencé. mais Pawlish si antenne bi ngay wuyoo déggoo déggoo la say mbokk. c'est très important mais Omaro yow tamit nag di wuyoo très important dëgg la jibi jibi jibi wax na wax ju am solo Pawlish a dafa am actualité bu am ci seen kër yow. waaw seen kër. <laughs> jot naa léegi information bi en exclusivité <laughs> parce que Sénégal gépp xam nañ ne yow 10 000 problèmes Ouzin Keita yéen a bokk kër ay doomi nday kul crise ngeen. te réeroo am na foofa. dóorante bu métti am na ci diggante dix mille problème ak Ouzin Keita. ma dimbali ma bëgg nag ah. ma bëgg ah, yow ay leeral. waaw ah, xam man koo fekk dix problème di ma saaga day. i di wax waxtaan dix problème nga xam ne barki démb maa ko jënd xar tabax si yóbbu ko këram Ouzin Keita maa ko jënd xar yóbbu ko këram lu li tax ma wax ko télé li ma li ma dix problème def moo tax dama xaale parce que ñoom ñaar ay baat doon lañ. <laughs> loolu mais lu xew. c'est xaw ma mais non man comprendre nu ma man problème bi ki ma yónnee message daf ma ne dix mille ak Ouzin ñoo jote déedéet maag yow lañ jotee maag dix mille ñoo jotee Ousseyn yàlla dafa def ne moment bi duñ tuddante parce que ku bon na da ngeen nekk say jafe-jafe xam nga ñoom ñoom xam nga ñoom buñ pertee dan ma dañu koy cippi pour xewaat ah xam nga tabax si waaw xam nga xam xam nga tabax si mënul hmm. mënuñoo def mënumaa def lu baax dèjà jënd ku ne xar ñoom ñaar hmm. xëy suba di problème def vidéo di ma saaga ndey eh, waaw loolu yow xam loolu dafa ñaaw Omaro. waaw ah, loolu rafetul de xam naa dafa xam nga moom bu tuxee du xam fu muy ne. Ah. waaw parce que foofu lañ toll kenn ki li tax ma bàyyi ko day day xeesal ma ma waxoon ko bàyyi naa leen. kan Ousseyn day xeesal. Hmm, bi nga ne waaw day xeesal. Ah. te Omar man boo ma gisee xam ne tiyaa boo tee. tee bu salissant laa uh-huh. léegi ñoom su ma dee ba di ma saaga ndey ku ne di génn te àdduna du neex ba barki salaatul fatiha ba ma jubóo teg moom ci àdduna ñoom ñoom ñaar bàyyi naa leen. Eh, eh, parce que ñoom eh, barki salaatul faatiha laa la wax laa ne àdduna du neex a neex ba ma ba ma jaaroo ñoom taal bàyyi naa leen àdduna ak parce que ñoom li yàlla def ñoom def nañ ko ñoom amuñu ci oto Ouzin amul ñoom ñaaw nañ yow foo ko toll moo tax di <laughs> di problème perte na ah ñoom ñaaw parce que ñoom isa isa nga am na yu bari yoo xam ne di nga am léegi di am oto léegi xaaral vidéo bi la bëgg a jël non ay ay eggale eggale Pawlish. vidéo vidéo vidéo. am na yoo xam ne eh gars yi nag Omar. waaw gars yi nañ jóg nag jàpp Djiby Seye mii international nañ ko jox oto waay. nan yow. Hmm? ndax naa leen nan ma bàyyi naa Omar damaa bëgg ñu bàyyi ma nag ñoom. Hmm. Hmm. barki alxuraan bàyyi naa leen tamit. dof yi sonal dof bu jam ma. waaw mais man man waxi dof laay def mais dof yi day raw mais ñaari dof yooyu Ouzin jabet na ba yàqu din problème ndeysaan suñu borom dimbali parce que rasaami dafa sam seet ko dama bàyyi baal bu gaañu woon ñu jël rasaami ñu yëg loolu jàpp ko pëli dagg ay rasaam moo tax gisoon ni mel léegi xam nga ñoom danoo pet la yoru yorutuñ dara nan ma bàyyi ngir yàlla suñu borom mooy xool li ko neex mu def ko ci dox yàlla mën na ko nekk instant nan ma bàyyi Pawlish bu ma déggee sa communication ñun ñi nga xam ne tey ay nitu télé lañu euh, nga xam ne xamuñu lu wax wax rek lañu xam buñ waxul du lekk moo tax wax duñ dégg rek xam nañ fu mu jógee ak fu mu jëm ni nga communiqué dafa mel ni crise de jalousie dafa am ci sa diggante ak ñooñu aha parce que damaa dem seen néeg yi ba ne ginnaaw suma tabax si ki seen néeg yi ñaaw ah bon waaw man maa tooñ ma def vidéo léegi nag. ah, ah waaw waaw xam man ma doon laaj ma def vidéo nii et ne suñu borom moom suñu borom moom moo moo mën a teral dof teral dof bu yàlla ànd ñoom ñu gis seen bopp nag commencé te man may naa leen xar ku ne xar xanaa man baax na. non waruñu woon gis seen bopp nag mais yow tamit war a woon filmé bi ay néegi jàmbur waaw non damaa gis ñoom ni ma yebee ma xool seen seen dëkkaay ni mu meloon ba ma nekkee Pikine sama néeg ni mu ñaaye woon mhm. noonu la meloon mhm. te yàlla di ma demee génn naa ci néeg bu ñaaw léegi maa ngi dëkk. aw mais fan nga dëkk Pikine fan nga dëkkoon ci Pikine. Ecotaaf. ci fan maa ko ñoom xaaral jaay ñoo taxawloo kër. kër Pape Boy Naar. mais Pawlish dafa mel ni guddi yaa ngi ci bien net. yaa ngi ci Omaro sant naa de. yaa ngi ci carte gab la Omaro barki salaatul faatiha. Eh, carte gab la yor Omaro sant naa de. mais Pawlish ni mu demee noonu. Omaro ma damaa ñàkkoon. Omaro sama néeg dafa ñaawoon trop trop trop trop. yaa xam te moom taw ci jot ba gan ñëw seet ba ndax néeg bu ñaaw Omaro maa ñaawoon néeg waaye. ndeysaan. allo. eh waay nu ko ne wax moom day wuy téléphone day wuy téléphone nii de. Ah, déggu leen ma de waaw que si ah, ah, bébé non ma mayoo ma eggal yi parce que damaa ci ci ñàkk bu doy waar ma eggal ñàkk après ñu ci avancé jour. yaay comprendre yow kii nga bëgg. yàlla nga dund Mbaye. yaay comprendre dama Omar sama nit dafa ñaawoon. mais nag il faut ñu ñëw ci sa jaar jaar Pawlish. parce que Papa Ndiaye Papa mm. Ndiaye lii ma lay laaj c'est très important. tey am na ci ay xale yoo xam ne. ñi ngi ci jafe-jafe gu metti jàpp nañ ne ci àddina mënatu la baax. mooy naan ci ñàkk la wala. waaw ci ñàkk waaw ci ñàkk. Mhm. te xamuñu ne fii dund ngi am bés a ngi ñëw kalaatmaa mën a changé. yëf yi mën a baax. <laughs> léegi nag nga leeral leen. ni nga ñàkkee woon démb ak tey ni nga ni ni nga tekkee tubarkalla macha allah yàlla la man ni ma ñàkkee woon ñoom est ce que ñoom ñàkkee woon nañ noonu ñàkk boo xam ne dama doon sawlal ndax stress. waroon <laughs> yëf yi yëggoon na foofu. damaa ñàkkoon ba fu ma tëddoon saw ndax stress barke alxuraanu karim kii jibi baal ko dégg kii lu mu la waxati sama néeg Omar sama néeg dafa dafa dafa doyor waar mu jigi may obligé di tëdd ak sama sooy waxtaan sama maam nag day sérieux tuuti parce que sama maam la dëgg la dama doon tëdd ñun six lañu woon jibi da ngay ree yow ci ñàkk nga dëkk de wala ngaa fa scooter nga yor ah sama sama néeg suñu suñu néegu famille ni la tolloon kon ni kon fi ngeen di toogee nii. Mhm. may tëdd suuf sama rakk yi di tëdd ci kaw. waaye ah, Pall nag yow. waa déedéet parce que fii la sama fii laay nettali pour Sénégalais yi xam ne man li may wax du amul triche damaa ñàkkoon lool ñàkk doy waar laa ñàkkoon. Mhm. nga lii muy def nii yëpp xam lan la. Euh. maanaam kii seetaan. Mhm. muy dix mille problème. maanaam da koy ci beneen canapage bu ko dee dix mille day fàtte problème boobu bu dee ba tiim ko ba war ko dóor. xalaat ni Pawlish mii dafa ñàkkoon problème bu fooyoo xam na ni diini bandi la moo xam nag xam nga diini ah. instant bi dafa amaat beneen leneen lu ko gën a metti uh-huh. muy lan parce que dix mille xaritam dof nday uh-huh. dañ ko jàpp ndeysaan ndeysaan jàpp mu am lu ko metti yàlla gën a jàmm waaw te dix mille fi mu nekk nii uh-huh. ñaari metti yooyu mënu ko boole ñàkk ak jàpp déedéet problème bi booy. ba métti ba ba métti la kon. ba di ba ba métti ne ban métti ne ñoom ñoom ku ñàkkoon dina am bu dee góor hmm. ku ñàkkoon nga góor rek jàpp sa ñàmbur. to teral lu la say waajur wax nga dëgg te li tax man sama ñàkk amoon solo. da daa amoon solo sama yére tabax si. yaa ngi woon sa maam de Pawlish te c'est très important. loolu maam. Hmm. dama ñun dañu ñu am benn néeg léegi barki salaatul fatiha ma obligé ne xaaral mënumaa ma ak sama xaaral ma liggéey boulangerie kaaru kaaru guddi pour wàcc 6 heures mën a nelaw est-ce que dégg nga papa Ndiaye. Ah, naa si système pour bàyyi leen ñoom ñu nelaw guddi. kaaru guddi ak bëccëg waaw. Ah, très bien di nelaw man damaa am jom nag. mooy obligé di def di def loolu mooy football soo su waree dem entraînement 8 heures damay nelaw ci boulangerie bi parce que li liggéey xam naa ne mënu ma ko boulangerie xam naa ne mënu ma tax nuy rij mburu mënu ma ko mais dama doon wut teg fu ma jàppandoo pour guddi gi ma mën a xam-xamu parce que pikinu guddi may dof dof liggéey liggéey ba liggéey ba sama benn papa gis ma kon naa njaga mm-hmm. yaa na ko yaa na ko yàlla xaar àjjana ne ma la ngay def fii ne ma Pawlish ma ne ko waaw mu ma dama laa bëgg a indi sama kër ma dem seen kër ji ma dem këram jili mbay mu may defar di ma jox lekk di ma jox may naan jabaram Marème Mbaye ak Khalifa Ivan moo tax ku ñàkkoon ak suñu borom boo boo amee ngor ko dëgg di nga am. mais sa xol bu nice ah, sama xol euh, dafa rafet. waaw da nga yéene ñëpp laa yéene jàmm da nga yéene ñëpp jàmm. ñëpp laa yéene jàmm barke yonent yàlla Muhammad kéenuma hmm. parce que soo waxee Amady dama sama tukki ci loxoom la jaar. Hmm. sama dem Europe Amady. ko gën ci réew parce que waali sama visa génn ay mercredi ci guddi ma war a dem jeudi hmm. pour fekk Euh, Zénith Waalo bi samedi. Mm-hmm. ma dem ci benn appartement tudd foofu parce que boobu ñàkkoon naa. Mm-hmm. xalaatu ma ñàkk xalaatu ma ne dinaa dem. Mm-hmm. xalaatu ma parce que décroisé naa. nga stressé di ma wër. donc jagooru. di ma wër di ma wër ba fekk ma fi ma nekk. ma dem fanaan néegam këram. barke salaatul fatiha amadi yal na ko yàlla defal jàmm yal ko yàlla suturaal yal na ko yàlla gën a teral di jaale la message ku mën a sonn ci nit mu njóogu mbay eh kooku suma xarit la taalibi Serigne Saliou bi. moom la fekkoon fële. kenn du moom waaw moo moo fekkoon ba ma jàppee. Mm-hmm. non la woowee yow kenn jàpp la lan ah, woo. pour damay sagal police yi tuuti mm-hmm. ma jàppee. Mm-hmm. moom moom ma taxaw ni papa di ni papa di taxawoo doom. Ndiakhou Mbaye dafa baax barke salaatul fatiha. taxaw ma taxaw bu yéeme yéeme. bar di ci def loolu ak loolu. kon Ndiogo yal na yàlla defal jàmm di nuyu Awa Balde. sama yaay bu baax la bu gore la. borom Paris. Oh, ku mën a solo ci dina di nuyu nag sama yaay Fatou Laay. Mhm. yal na ko suñu borom defal jàmm. yal na ko yàlla suturaal. Mhm. ku baax la. te mën a ku may jox may lekk may mhm. naan di bi des fois day xiif. Pawlish am nga fi benn teraanga de. kan la maam Basine Thiam. xam nga maam Basine. kooku man boo paree nga woo ko. ndeysaan am nga fa sañse. jigéen ju baax boo paree léegi. boo yorul numéro ma jox la ko. baax si dafa baax moom dama yàgg bëgg. nee na li nga wax ci famille ak fi nga jaar. waaw Omar mm. nee na li mu wax ci famille ak fi mu jaar ba toll fii te rusu koo wax. Mm. moo tax mu defal la teraanga boobu. moom ba may bëgg ba ma naan pédicule ak musicule xam nga man daa monté pédicule mm-hmm. ak musicule man ma koy. ngay lan pédicule ak eh, musicule jibi yow man nga yab ah doo wax ak kii. Euh, kii ah pédicure ah man may defal pédicure maanaam pédicule musicule. ci la ma ci la ma baax waaw ci la ma baax bëgg bëgg ba tey parce que mu yor ñu raay rafet ba ñu weex tàll nit ku baax léegi nga gën a jantal nag waaw eh, xaaral dinaa gën a jantal parce que ku ñàkkoon boo amee rek day neex damaa ñàkkoon de Papa Ndiaye damaa ñàkkoon Papa Ndiaye julli daa moon xam ne yaaxamtu moon julli ak tabaski yaaxamtu ma woon barki si yonent bi yaaxamtu moon ay julli barki Muhammad amoon na am vingt ans soit génn soit ma jënd ci ñaari mètre ñëw yéeri popeline popeline laa ñëw tuwee bi ñëw yére bi mu wàcc barki ndax ñàkk dem marché jënd daal yoo xam ne na toll mille cinq cent ba ma ci jullee dafa ñëw foxatiku ma xam ne ñàkk papa Ndiaye yal na yaa musal ci ñàkk ma doog ku ñàkkoon yal na suñu borom may parce que xam naa li ci ñàkk nag xam dund naa ñàkk lool sama néeg bu ma saa nawet bu ma saan taw day mel ne nawetaan moo jot ci man damay stressé parce que pot yëpp laa am pot bëri yëpp laa am sama néeg parce que fu ne lay toog fu nekk la ndox di toog sama nekk fu nekk mais léegi situation de vie bi fu mu toll Papa Ndiaye foofu laa bëgg ñu sant yàlla léegi léegi buñ jógee ci ñàkk léegi ñëw nañu tey ci yàlla ñëw na ah indi ci am nag mhm. waaw yàlla ñëw na fu y'a beaucoup de l'argent man li ma koy li ma koy laaj Pawlish ah. lan mhm. moo tax man mosuma la gis ngay xeex yow da ngay kaf da ngay ambiance kese lu tax lu tax loolu yow doo mer quoi déedéet waaw parce que ndax lan ndax dara nga wala ñu ngi lay dimbali wala ñàkkoo lan moo tax fu la fekk rek yow da ngay kaf parce que li may xeex dama koo xeex ci ñàkk mais lan moo tax nan nga gisee ñi ci mbedd bi oto yi duñu may kenn nit ñi gaaw mer. ñi soxor. waali amee ñu waali li mu am pour lan mu am. parce que ñoom bu bu bu jibisey amee ñu ne pour lan jibisey am. te yàlla yor yëfam di ko fii ko fi mer da ngay kalaamee yàlla nga xam boo dundee ñàkk lu ma de. mais Sénégal yi laa nax ne damaa yow fi nga jaar moom moom ko def xalaat moom naa ko dawal baal ma je m'excuse justement arrière ba pare léegi Omar kenn baaxul kenn gaaw mer gaaw boole gaaw waaw pour wan xoolal wàññi ay ay ayub Omaro mm. Omaro def na lu ñaaw mm. Omaro wax na lii filmé Omaro mm. lan moo tax léegi nit ñi toll foofu quoi man bon mala yooyu xam nga xam nga war a lool boo Sénégalais yi am na nit ñoo xam te noo mm-hmm. bon am na am na xool li Omaro am bëgguñu am ko li Papa Ndiaye am bëgguñu am ko am li moo tax suñu borom da leen di rey gisoo ñu bon ñëpp suñu borom mi leen rey ñi ay yàlla nag mooy xool li ko neex mu jaar la ñu lay reyee am na ay rayu seet la am ñoo xam ne da ngay doom oto mbëkk la teel loolu sa xol mooy bon suñu borom loolu la koy jaarale parce que nit ki mënoo liggéey sa yaay liggéey sa dama lay ñaan xam nga man suma xarit nga ah, dama la bëgg lool sama xol bi nga nekk suma rakk di xale bu baax ñu yàgg nag dëgg la dëgg la bii ngeen nettali ba nga ñëwee fa nga ma fekk dëgg la maag yow Lamine Naar Arma Ndiaye. waaw sunu ambiance biir Paris ak sunu néeg ya loolu beneen dimension la. mais dimbali ma dama la ñaan bàyyi di xeex ak parce que wóoru. ah xam naa li ma la wax. xam naa li ma la wax waaw moom xam nit ki baal di xeex ak dama la ñaan. xoolal Paulus nit yoroo bind rab. Eh, li ma lay wax li ma lay rab la yor. <laughs> parce que film daa bët. nga ne. tey boo xoolee du ko est-ce que gis Ouzin est-ce que sumeeku. déedéet. fii dafa mandarga bët. Eh, bët la nga nekk de Paulus waaw. bët mel mi ngi xool tey waxoon nag fii yëpp muy wax. ci ginnaaw amu ci. non man mosuma a ne xeex na yow nekk xale nga. ndax xeex guddi. non Omar wala taa di ragal baal ñu ci jub <laughs> waaye xale yi nan ragal Ouzin Keita Ouzin mooy way mi ngi bañ. Ouzin xar na ñëw ñu jël Ouzin pour <laughs> xale yi ragal ko. Ouzin amul buntu ginnaaw xeex jotu ko. ku ñaaw làmmiñ ku ñaaw làmmiñ ni Pawlish Mbaye bu ma giddoog suma yàlla bu mu la bañ ma giddoog suma ndey soo ah non tarba mbaay sama rakk ndeysaan nit ko yàlla tarba maa ngi baax ji waykat bu mag bi tarba loo dul doyul tarba nuyu naa la sama waykat bi waykat doomi naa la Pawlish Omaro ñëwul foofu xeex loolu muus bal yàq binu muus song ma Ousseyn moo tax yal na ko so dimbali ah. yal na sa fii cuuraay seetaan fi ñëw nga xam ni moom moom du nitu kese ba may xeexee moom jëmmu nit la indi mais kanam ba muy ñëw muus la mu muus la ma déclaré. yow loo gis. <laughs> xosi sama yaram bépp xosi sama yaram bépp kuy ni muy naa nga xam ne moom du nit. nit yow ki nga bëgg yow. nit yow yow nit ma dëjugee fii di dem ba nële. loolu loolu loolu Papa Ndiaye loolu lu ma la jox. te yow loolu la joxul ñoom mbar. aywa aywa da lay jox golo wala da lay jox bukki wala da lay jox xaj wala da lay jox rab. kii nit ki tëbee fi nga cukk fi tëb ba fale kooku la lu mu la. te ci gën a garaaw xaaral ah. mooy wax ji wax ji yëpp. aywaay ñemewul Ousseyn. aywaay. Eh, c'est yi eh, eh, Ousseyn. bu dee biir kër yi nit rek kii. bu nekkee nit dëgg dëggantaan njaay. Mhm. kii tëdd nañ ba guddi mu woo ma ne ma Pawlish xam nga ñoo bokkoon fi ñuy tourné. Mhm. nee na Pawlish Ousseyn fii liy tàkk ci ginnaawam bi lan la. ma xool ko ma ne ko li bët la. bët bët bu yaatu ci digg li. waaw ah, fen coalisé yi mooy lan. mais ku euh, euh, dend du may fekk bu ñu nee damay def parce que ni mu bindoo moment bi dafa gën a soxor. waaw <laughs> moment bi dafa gën a sadik parce que moment bi nag mooy seen temps. nga ne waaw moment bi nag mooy seen temps. ñoom de barki moo xam man ku ko jàppee nit yaa ngi nax sa bopp du nit. kon lu garu la. moo raw lu mais Pawlish xam nga tey Sénégalais yi ngi lay seetaan. fi mu ne dossier bi ak discours bi dafa sérieux waaw parce que yaa xeex moom man xeexuma ak moom. li ma gis laa leen tey. li nga gis ngi ni tëli daa a leer li ma gis daal di nettali loo xam ne. Pawlish nga bi mu jugee song la. bi mu départ di ñëw nit nit mais bi mu ñëwee gis. ba muy tey ba muy man. waaw nit la déclaré. waaw nit ma attaqué ko nag ba mu ñëwee muus moo ñëw sama ki yaram ma xam ne kii nag ci en Ah, kon jot na kon nga nangu loo Omaro jot na nga. bàyyi di xeex moo tax ma bàyyi di xeex ak doomu aadama bi soppale ko nit lu ma wax baax na. misaal laa noonu misaal ba ma dëkkee euh, dëkku Baye bi nga xam ne dëkk bépp la ñëpp dëkk. Mm-hmm. ba ma tëddee dama doon ay àjjana. ay pari laa doon gént ay pari di ay ay ay potu ay yoof ay potu laa doon gént. ay moo xam sa yu am meew am beurre. yooyu ay chocolat. Ah, ay ñamu àjjana quoi ay ay ay ay raisin. ay piscine ay sompat ay yëre de ay mais aussi mu dëkkee sama ginnaaw ba tey ay jaan laay génte <laughs> ay bukki ay sox ay paañ. ay crevette grappe ay ay crabe ngan yooyu. fan la sa ginnaaw sama ginnaaw la teg ay lu lu la laaj. lu bëgg lu ray ma moom ray ma rek moo ko tax a jóg. ray <laughs> ma a jóg. naa dima leen ma. barke Seydunaa Muhammad billaay wallaay leen kenn laa koy dagante xam naa ne bu ko defee saafara bu fay. Mhm. maam Thierno. Omaro damaa wax nga jàpp ci maam Thierno. Zeking na ko de. Zeking dimbali ma ngi dem Rasulullah aussi lu mu lu mu nar a faagaagal pour ray ma nga kàllal ma ko ngir dimbali Rasulullah ah intéressé wu la jël non parce que kuy soxla ko dañoo muus maam Thierno am nga cuuraay yoo xam ne kooku suur bu nekkee nit la dina dina yor jëmmi nit bu nekkee nit la bu signalé ji euh, buy buy bi nu bi nu muus di nga soppali ko asolo loo waaw mais mais asal loo nee na asal waaw asal loo mm. borom daam waaw euh, sos rek def mais yow moo tax Pawlish Pawlish ni dafa mel ni dafa xaw ma ñi. Pawlish xamoo ko. Pawlish <laughs> ah, dafa nag yow mooy sa nooy neex mooy sa nambe yow. dafa ni musuma gëm kii day xeex. yow dafa mel ni moo ko ñemewu. non mais dimi problème lim lay wax cousin waxu la ko. xeex cousin rek bàyyi dimi problème. dimi ko opéré fii. fii yëpp dañ ko def mbuus. lu ko dal. dañ ko opéré yaram bépp mbuus la ñi see feebar moom yaram bépp buus mais mais opération pour lan la moo tax ñu opéré ko ah xamaa xamaa feebaru ceeb bu nekkoon ci biir xam nga ceeb la lay lekk moom léegi fii yaram bépp fii mbuus a ah appendicite la waaw yaram bépp muus la xam nga ñii de ay mais mais yow da ngay kaf wala ci télé nga nekk nag barki dix mille problème bu sumee ko yaram bépp muus la waaw mais nag lii bu amee dix mille problème xaritam ñu doo dem woo ko nga ànd moom nga jàppale ko ci dëgg dëgg te yàlla rek tax mais bali waaw mais lu ma ci def man su ma leen bëgg a dimbale ñu attaqué ma xeer di ma saa saa mais non Pawlish Pawlish Pawlish on est en direct sur la 2STV àddina moo ñu seetaan bu la yàlla teralee nga jiitu da nga yërëm ñi sa ginnaaw yërëm naa leen de non il faut nga yërëm gars yi Pawlish mais dama iñaane di oto fi laa ko may oto fii laa oto bu rafet may ko ko eh, eh, eh, mu may laaj assurance mu jëlaa oto bi kan Ouzin tam xaritu daaw ñëw sama kër def lu rafet nee na kat nee na day def fair ñëw sol jàllaawe bu xasaw boobu ñëw toog xam nga man sama néeg léegi dafa rafet ma taal clim bi di seetaan te lekk sama cere di seetaan di seetaan kii euh, Rosa xam nga film na Rosa Salvaze Rosa ba koy seetaan Ousseyn ñëw ne indi caméra am nee ko ma lay ma mu gën ma ko caabi oto may ko jox ko këyit oto yi mu xëy suba di ma laaj assurance. ma xam ne kii ab dof la ma ne ko indi ma wutal la assurance jox ma caabi ma dof kenn du ko dimbali. <laughs> non mais mais li nga wax nii. problème dara taxawu ko parce que nit bu feebaree. Mm-hmm. na ci naqar. da nga dem taxaw ko nit loolu lay doyee moromam dëgg la mais yow moom kii nga bëgg yow yaa ngi ne bay ñooy umaro deru xaar teg ko ci kii yoon deru xaar ah, moom ngay greffé waaw greffé waaw waaw ah, ah, Pawlish yaa ngi def ay single di génne ay single fi grand théâtre ba jàpp nag ñëpp jënd ay affaire di xaar lu ma génn fàtte ko Omaro oui yaay wala du ma tudd single nga génne est-ce que du ay six six single lu ma tudd. maa ngi doon waay non Pawlish dañuy waxtaan barki salaatul faatiha non ma waaw kenn waxal ñaar pak mi ngi may woo démb. Eh, eh, barki Muhammad pak pak mi ngi may woo. tegal ndox bi ñu waxtaan pak mi ngi may woo barki démb lu ma tuddee kilo Viviane bi. mais li ma li ma fa li ma way laa fàtte xaw ma lu ma koy tuddee. mais Pawlish non taxawal. li nga Viviane lu muy loolu waaw fàtte naa ko dañuy waxtaan. munoo munoo munoo munoo di yëkkati. sa xaalis dem studio fay. fay fay ma sama xaalis de. yaa ngi may dégg da lay fay studio. ma doon may defal lépp da la koy may. <laughs> waaw léegi ngay génne ay single pare di ci def ay clip bu un million et quelque yow say clip c' est des clips professionnels. ay clip ah. ay clip yu baax la. clip yi Wally Seck di tourné ak ñoom Sidi Diop. clip yooyu ñuy tourné moo tax sénégalais c' est des clips professionnels. ba pare nga ne amoo carrière man loolu. sénégalais ma bay bayal clip laa ko xamee man muy feeraay. Ah, am na ak ak ndaw am na beneen ak ndaw ak jantal. ndaw eh ndaw ci internet la ndaw. demoo ndaw ndaw ci kii man sama sama clip da nga koy daw ci dafa fos parce que foofu laa toll. par force. par force la ah man damaa yow jibi mais bi nga mujjee génn mooy jantal bi ah. non bi nga mujjee génn mooy jantal. waaw dafa jantal mais li nga way Viviane moom génnagul. parce que dafa fàtte li ma ko fàtte la way. Euh. way wi laa fàtte moo tax ma ne te nekkul kii way na ko a maanaa nag. non non non non Viviane xewi woo. loolu la ah, waay Viviane xewi woo. loolu la projet yi amul ay spectacle. barke yonte wala Grand ma jël nag ndax ay ay ay live sa xaaj la yàq que mënu maa way. mais kon Pawlish luy sa liggéey. Pawlish kon luy liggéey. waxi dof rek kese. non non non non Pawlish bu ma waxi dof. <laughs> may seetaan nag. jullit nga ay jullit laa te bëgguma lekk àq. waaw ku ma ci jël ku ma jox sa xaalis bu dee ay wayel yaa ngi perte sa xaalis que loo way fàtte naa ko mënu maa way ku ma ku ma ku ma tëgg jox ma sa xaalis pour concert wala leneen yaa ngi yàq sa xaalis mënu maa way dama leen koy teel a wax ku ma jox sa xaalis ndax ay soirée wala ay concert barki yonent yàlla xam di nga sa xaalis barki mu xam mënu maa way ku ci sa xaalis pour ma play bagal la wala leneen di nga sa xaalis mënu maa way dama leen koy teel a wax li ma yàlla bindee bàyyi na ko ma waxi dof ma rek ku ci ma gën a waxi dof ma defal la bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon Mame Thierno bu neexoon Jaking bu neexoon mu dem la kaamil Nasiru maa ngi lay wala kurus wala jalabe wala ndoxu zamzam wala xeeru julikaay Jaking mm-hmm. Mame Thierno bu ko neexoon bu ko neexoon mu dem la aliwe eh te baat bi dafa neex wala sijaada wala xeeru jullikaay wala may luus may luus <laughs> maam Cerno bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon mu def la ndiit wala solom aya di nuyu tamit ku baax ci man nag waaw mais bu ko neexoon du kañ nga koy dugal bu ko yàlla neexoon xam nga di yàlla lay way ah. mhm. xam nga yàlla bu ko neexoon def ma ay ñombar. wala mu ku gëm yàlla la. Eh, eh, doguma la yàlla bu la yàlla dog Papa Ndiaye. Pawlish ku gëm yàlla la. Mm-hmm. parce que carrière ba mu dooree ak léegi musuma gis mu dugg studio way nit. mindee fi yàlla yi rek lay way. Mm, comme waaw dégg naa ko mu way. jën mm-hmm. way solom. ay ndiir ah. ay soxsoxor yoo xam ne am solo. way soxsoxor way paañ paañ. ay ah, kew way coof jalañ yaax bër parce que nit nit moom day xewi mm, fi yàlla yi daal di lañ jox cër lool lool lool lool lool lool jógi jaan bu xewi hmm? jógi bëgg naa ko bëgg naa ko conseil dara yeen yeen yeen yeen yen yi bàyyi mu sedd ñëpp baax na kenn amu ci problème hmm. ñoom ñëpp a baax mais no mais mais nag de wax lu leen ay yaay <laughs> mais Pawlish ma Pawlish sa xarit sa doomi ndey actualité bi xam ne mooy actualité mondiale mhm. àddina sépp di ko xaar te li ki des ci ay bis matatul ñaar fukki fan ko xaar bu xam naa fa nga jëm ah xaar ma yeggal danga may ma yeggali danga may ma yeggali non danga may ma àddina juróom ñaar di ko xaar mu nekk actualité boo xam ne actualité moo la tey boo demee ca tv cinq boo demee ca TV5 tey wala nga dem RFI ñi ngi bàyyi xel boobu jotaay ñi ngi bàyyi xel boobu jàkkaarloo ñi ngi bàyyi xel boobu rencontre bu mag bi nga xam ne fii lay xewee ci réew Sénégal hmm. muy sëriñ bu mag bi nga xam ne tey moo fas yéene xar géej gi ñu koy wax kunkange te muy sa xarit di sa doom day ndey kunkange day xar géej gi Pawlish Mbaye loo ci wax Seydunaa Muhammad sasa mënu koo xaar duusu néegam nga ne moo tax duusu néegam mënu ko xaar duusu néegam mënu koo xar duusu néegam mais Pawlish est-ce que seet nga li ngay wax ku ku borom baatin la de fais attention boo jëloon buusu ndox waaw mënu jël paaka xar ko te nag na ci dëkk bi wax nag eh, dem na seen TV fay lamp yi de de fayu lamp na ñoo ko fayal ah ñoo ko fayal seen biir de ah fii de bu fi ñëwee dugg mais surprise naa ma ñoo ko fay te te jour bu duggee géej jàpp ko ci xol Hmm. ah lakkantaan nga jënd décision de. lan lakkantaan. waaw ak bu ak xor ak ah, xor. waaw ñooñu da nga leen ak paañ ak yéet jour bu ñu jëlee ma hmm. waxtaan naa ñoom. Hmm, jour jour jour bu ñu jëlee intention ba xuus barki mu xamal bu ko lakkantaan te tafee ci naq. day gis du rëy. waaye nag Abdou bu Bordeaux. waaw moom nee na dafa bëgg. nga def déplacement. ànd ak gars yi ñëw fa. ñëw fa Bordeaux. Abdou léegi léegi mi ngi ma koy wax. xam nga xam nga xam nga waa Bordeaux bu ñu wax rek. bu koy fàtte de. non non ko fàttali. léegi Pawlish kon da ngay ah. jox dig daje sénégalais yi pour ñu xaar bisu tam xarit comme kaa ngi xaar géej gi. non du ko xaar wala da wax ne jarul déplacé wu. ku dem waaw. ku dem di mm. te xam naa ne moom du dem. mais ma dama gis ay boy yu préparé seen valise. moom du dem moom eh, dem France. moom day porté malade day porté malade moom. te pour nga xam ne man sëriñ laa léegi ma tey wax la pour nga xam ne ñoom maa ëpp kiraama ñoom. waaw ndeysaan ah defal ñu benn. ndeysaan léegi nag Assane Lo. waaw euh, Assane Lo. bu Carlou D mm-hmm. moom nee na uh-huh. képp koo xamante ni ci yéen ñi pare nga pour def clip moom nee na moo la ko may ndeysaan ci wallahi la azim moom nee na moo la ko may moom moom nee na xolam dafa sedd ah. parce que mi ngi seetaan émission moom njabootam di ci jëlee ngir waaye ñu ngi kaf ñu ngi ree ndeysaan day jàllale message nee na moom looloo ko daanaka mais fekk si nga ma l'utile à l'agréable. li ma tudd l'utile agréable. Eh, eh. eh, waaw asan loo bu kaw mi ngi tudd l'utile agréable moom l'utile à l'agréable fekk si nga ma ci nag. dëgg la jërëjëf jërëjëf Pawlish Mbaye sant nañ la gërëm nañu la am nañu ceeb kontaan bu baax waaw dama la jox nga tàggatoo dama la jox nga tëj. moom Tarba sax da koo invité tey via Cristal Tarba Mbaye. ah tey ci samedi bi da laa invité tey. tey laay ñëw via Cristal waaw Ndiol nee na nga ñëw waay Omar. non dañuy dem lu neex lay waay. barke da daa mën a waay tamit di di di nuyu tamit ki tax a mel nii mm-hmm. ki tax ñëpp bëgg ma ki tax ñëpp ràññee ma muy waali dëgg la mariage may sa biige te ki ki ba ma kenn bëggul ba ma mm-hmm. fu ma génn nga naa ma sappi sappi wala chien mm-hmm. moche ba tax ma rafet yóbbu ma Europe may ma oto barke salaatul fatiha jëndal ma teere tey nit amul am te aw ma ci àddina tey su ma nit ñi demee ba ba nit bëgg ma yal na ko yàlla defal jàmm muy waali di nuyu tamit ki tax ñëpp ñemee ma muy bisu jagana bisu ngoone ma cousine bi tey su ma su ma télé yi ñemee ba ñëpp mhm. commencé maa ñemee moom ci moom la parce que moom a njëkk yóbbu ci télé télé bii deux gestes ni dikkati un million may ma mhm. yóbbu ma tukki mhm. yóbbu ma tukki teral ma bu baax baax Bijou Diagne yàlla na ko yàlla defal jàmm mais foo toll ci aar bi nga a gën a yàq ngi yàqu dafa baax de moom yàqu na yàqu na Mhm. mais nag aar bi xam fa la jëm léegi aar bi yàqu na léegi journaliste yi ñi ngi xuloo seen biir ñi nekk ci télé yi ñi ngi xuloo seen biir di yàqante yu DJ waaw waaw waaw animateur yi animateur ñi ngi seen biir foofu la jëm waaw waaw man bu subaa am naa lu may sànni si ñoom ah mhm. très bien jërëjëf Mbaye jërëjëf jërëjëf ñoo ngi lay sant di la gërëm di nuyu Balla Boy sama xarit la dëgg la ku ñàkkoon la moom mhm. Balla sama xarit ñoo nekkoon xale léegi dama koo jëlee Pikine mu ñëw sama kër parce que li muy moment li muy dund dafa metti dafa ñàkk nag xam ne ñàkk dafa métti léegi mi ngi sama kër. mi ngi sa kër ne yaa ko far waaw maa ngi nga xamul kii yaa ko far Balla nga <laughs> <laughs> toog ci télé bi ne ko tuy ñëpp dégg déedéet dama parce que damaa dem néegam barki démb gis ma jëlee lii lay jaay mënoo lay jaay ay xaal ay lay jaay ma nga sa kër waaw mi ngi sama kër Balla natt bi la yàlla teg yàlla ko yàlla teg Pawlish ku mën a jàppale jàppale foofu te nga wuti foo dëkk yàlla jeexul waaw ah, vraiment man Balla mm-hmm. baa doon yow loolu laa lay conseillé waaw koo mën a jàppale rek jàppaleel Pawlish koo mën a dimbali dimbali émission bi waaw mais noonu la am na kaf noonu la koo dimbali wax ka waaw noonu li koy dimbali noonu la noonu la samedi soir la c'est normal samedi soir tubarkàlla ku ne xam na ni ah li mënul ñàkk faw day am ah ñu bàyyi noonu antenne bi dëgg la feebar baa ngi ci suñu biir dëgg la dajaloo bi ci yenn plateau yu mag yi dootul mën a ne waaye nag du tee ñu créer dara rek daal di koy waxtaani bégale ko soppi nag ku ne xam ne ne ñun lii rek la ñu am télévision bi rek la am waaye bégal suñu téléspectateur la ñu am kon faw nuy waslu ak li mu laaj di ko def te ni nga nee Omaro dafa am lu am sax lu mm. dimbalee nit ñi ay xaraki tisi dama lay sànni benn message nga dimbal mi ngi dimbal su laay nga julli laa mm-hmm. soxna cantaam yi tànkam yu weexee fu itam nga wutal ko diw te yàlla tax maa la ko ñaan wutal ma ko diw te yàlla tax sama doom la waaw waaw waaw wutal ma ko diw rek ngir cantaam may bàyyam waaw ngir jëmi rasulullah xam naa da ngaa fàtte jënd ko diw non jëndal ma ko diw mais tànk yi weexul ah kay ay waay da koo nopp da koo nopp tànk yaa ngi ni diw na ko ba mu baax ay waay caméra bi su ma ma tànki kii <laughs> wasalaam dinaa ko def jërëjëf ah. jibi ma bàyyi la nga tàggatoo waa xanaa di sant ak gërëm ñi nga xamante mm-hmm. ñu ngi toogoon di ñu seetaan te ñu xam ne lépp lu luñ fi wax mu jub suñu borom la lépp lu mm-hmm. fi dëngit ñu xam ni suñu matadi la ndaxit it wax dëgg ne xaala matuñu ay doomi adama rek la ñu waaye maa ngi ziar sama cheikhul murabbi cheikh ahmed fall mi nga xam bërki démb la dem fees siyaar yi sang bu mu tedd ba cheikh ahmed tidiane chérif di nuyu waa kër cheikh cheikh uldul xayri waa kër mouhamad al misri waa kër cheikh ibrahima Niass di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxoy MC Niass mu tasaareel ma ko biir Kaolack ni ku yàlla baaxal fépp foo ni mm-hmm. rek wax dëgg ne xàlla taalibe Cheikh Ibrahima Niass nekk na fa jërëjëf jërëjëf Djiby lay sant di la gërëm di jàmm di la jox rendez-vous lundi incha allah incha soppe yi ci mbaax Ndiaye ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw man na maa ngi bëggee chef si mi ñuy seetaan police su Guédiawaye su ma waa ji nga xamante ni mi ngi ci kaw tali yenn saa yi di bëggee mbës su ma nga xam ne c'est mon frère di kontaan bu baax ci efficace Pierre Talon di gërëmaat di gërëmaat Matar lal ma ay guddi ci kaw ba ci suuf. jikkoom la moom waaw na ma laala lu la neex nit ku baax. jikkoom yàgg na loolu du tey. yóbbu mm-hmm. ju baro kay Arouna Ndiaye moom moom yàlla ko yàlla dafa jàmm di bëggee mm-hmm. Rosé. Mm-hmm. Rosé mi nga xamante ne moo Kébaak Waal yi nit ñu baax la nit ñu yàgg. waaye tamit xadim bu xadim bu ngoyaan. nee na mi ngi seetaan dafa kontaan ci émission bi. nit ku baax mi ngi ñun ñëpp nee na kaf nañ. ree nañ mm. waaye wax nañ fi luy jëriñ doomu aadama yi di gërëm bu baax Ifi Ñaasi ak Pierre Talon mm. di leen bëggee di leen kontaane ah, Mame Bassine Thiam yow mm. loo wax rek damaa bëgg nga boole ci Omoro boole ci Omoro Mame Bassine sama rak sama xarit la ñawalal Omoro ñawal sama rak ak Jibi Sey man naa xaar waaw Mame Bassine sama xarit la jërëjëf ndeysaan jërëjëf Papa Ndiaye Mame Bassine daal ak efficace macha allah xol sedd na ci ñoom macha allah Mame Bassine sunu jigéen la sunu xarit la mbokkum yaay ajaa faat Ndoye loo dund doyul nit ku yàlla baaxal la mam Bassine Thiam ñu ngi ko ñaanal mu am jàmm téwér waaye di nuyu bu baax a baax a ki nga xam ne mooy yaa awar a suul yaaw mi nga xam ne tey moo ma sponsorisé moo solal boole mag partenaire am yooyu ku ci mel ni ma Sénégal nga xam ne moo jaar ci kaw ci ensemble bi tey dama dellu suma dëkk na xam nga man américain laa ndax xam man boo xoolee sama bopp bi ni mu toll xool sama taay xam ne du nitu fii mais nag borom man la ci man nitu Amérique laa jaay non Eh, yaa seydi seen ah, yaa seydi seen nit ku yàlla baaxal eh, yaa seydi seen nit ku yàlla baaxal sama jigéen sama xarita ah, mooy présidente fondation Omaro mu Cheikh Béthio foofu ca Amérique yaa seydi seen maa ngi ko ñaanal yàlla guddal fanam tubéral cëram mais a ah, sul bu baax a eh, ki nga xam ne mooy waaw mais moom ma gërëm ñi ma solal dimbal leen maa ngi gërëm bu baax a baax ki nga xam ne mooy xool ma Sénégal nga xam ne ñoo jaar ci kaw ah delloo ma Chicago Amérique ci suma dëkk ba nga xam ne eh, guddi guddi falaay fanaan yàgg yàgg ah, ah, ah, nga xam ne yàgg yàgg falaay dellu suma dëkk bopp ba tubarkàll ah waaye Jordan ma gërëm bu baax a baax ki nga xam ne mooy Amdi Chouz Amdi Chouz nag moo génne ci Jordan yi ah papi tubarkàll jëlal ma ko papi Dieng jëlal ma ko gros plan ah Amdi Chouz maa ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla guddal fanaan ti wéral ay cëram moo ñëw ci Jordan yi ah ma tàkk ba yàqu dellu ci sama dëkk ba am di ci loo dund doyul yal na yàlla gudd sa fan te mm-hmm. bu baax a baax waaye nag gërëm nañu ñëpp mm-hmm. téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel à travers la 2STV góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen a jàmm sama doom sama xarit ah tey moom ma bëgg ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm am di million Khadija Baye Karim ak Moustapha Touré ah, seen jàmm yàgg waaye nag tubarkàlla macha allah ah Moustapha Gueye DG borom Diourbel monsieur le maire loo dund doyul yal na yàlla gudd sa fan te wéral bu baax le maire de Diourbel Moustapha Guèye DG yow la président Macky Sall wóolu yow la jeunesse bi wóolu doxalal te xam ne ngi ci sa ginnaaw loo song ñooy daal El Bachir Guèye ah mu baax mi borom Thiès monsieur le maire bu Thiès El Bachir Guèye ah yàlla na yàlla guddal fanam moom it te wéral ay cërëm nit ku yàlla baaxal la maa ngi ko ñaan a jàmm El Bachir Guèye loo dund rek bëgg naa yàlla na sa jàmm yàgg Lamp Guèye moo DG on t'aime beaucoup. mais boole ci Amadou Mbaye Amadou Mbaye Amadou bay borom maire Pikine Ouest. maire Pikine Ouest lay laaj. yàlla na ko yàlla jox yàlla na ko yàlla jox. ba suba jàmm incha allah invité ah. maam Thierno moom invité këram añ. ni ko oh, yàlla a Zeki. moom message léegi Zeki ànd ak Bafti VIP. naa la yóbbu ci Pape Ndong naa la yóbbu ci Pape Ndong. jërëjëf mbokk yi jërëjëf mbokk yi ba leen de jàmm incha allah jërë ngeen jëf.